bugguma wax sax mu mel ni ay affaire wu racisme la wala yooyu mais nag attends réew mi tey soo compté cent mille méngee fi cent mille njaayee nañ fi cent mille jóobee fi cent faale nañ fi cent mille ñangee fi cent saale nañ fi mais jaas matuñu fi cent mënuñu fi sans wax dëgg rek mënuñu fi sans. mais euh, qu'importe mais de toute façon ak fu ñu lay jàpp on regarde sa carte d'identité nationalité sénégalaise point tey kooku suñu taaloon c'est pas important ñooñu suñu leen taaloon tey du wàññi dara du leen dara ñoom mais tey ñu bëgg a taal réew mi te it baa gis Gaston nag euh, loolu c'est très grave mooy euh, li ñuy wax ne président Macky Sall loolu lay def ci mi mooy wàllu waasoo gi maa ko wax maa ko wax man maa ko wax